moins benn deux minutes ci gàttal loolu xam nga waxu caaxaan na rek. Mm-hmm. boo fi bëggee ñu wax diine. Mm-hmm. ci Sénégal. Mm-hmm. ne murid du ci bokk. tijaan du ci bokk xaadir du ci bokk laayaan ci bokk da ngay daanu. Issa Madior. man bokk na ci nga xam ne li ma xam moo ko def sama def na ci lu bari sama bopp. mais am na ay position yu bari bokkuñu. dëgg la. Ismaël Madior. Mm. dafa nekk professeur d'université bu am grade yëpp. nek ci politique. kenn ni ci politique delu na ci jangale nañ ko mm. xool. waaw vraiment. donc loolu c'est c'est c'est une chose à part maintenant. Euh, ci problème euh problème mu. assise yi dialogue assise mom d'accord d' nañ ci président li woté d'accord na ci. Mm. def na li def li def ni c'est une très excellente chose. Mm. woté ko na depuis le 23 mai. jubbanti ñoo ko woote xaw ñan la c'est très bien. C'est une bonne chose. parce que réew mi il faut ñu waxtané ko. bu ñu ko waxtané du duñu dem. Nous <coughs> nañu wax nak mm. préparation mm. le 23 mai le 28 5 jours mm. pourquoi seulement ce jour-là donc on na une possibilité d'avoir mon d'abord président mm-hmm. président 80 euh, la moitié de la population Sénégal ñoko un hôtel bu ñu organiser une communication ci na bon am droit autour d'abord des partis politiques yi ko soutenir ak ñi soutenir ñeneen ne leen yéen dama leen bëgg a boole seen cër constitution sénégalaise moo leen jox depuis 2016. ne yéen a war a former citoyens yi. Mhm. seet leen ku nekk ci ñeen ñoo leen di dajale. Mhm. ñu ñëw organiser leen ca gox ya ngeen nekk. Mhm. ñu waxtaane naka la justice bi war a doxee. muy benn. c'est une première c'est une bonne chose. Ouais. ensuite mais ñu nekk assemblée bi. ñu dajeeg ñoom wax leen officiellement ne dañuy jëm ci loo xam ne c'est le pilier. Mhm. ay li nga ay magistrat mhm. ay nangam ak yooyu yëpp xam nga loolu. Mhm. am <clears throat> manul am tey justice bi ci bopam, loi yi muy défar, baaxul yenu maanaa ñu war ko appliquer. donc c'est motax, c'est une bonne chose. il faut continuer dans cette lancée je pense que le président prend sa ligne. maintenant affaire da nga ci duggal affaire offense au chef de l'État. Oui. <coughs> mais xam nga très bu ñuy wax naan ndiw bàyyi na dara war nañu seet ñaata at la def pour bàyyi ko. c'est ah, important moom de nàmpatul. Mm-hmm. ñaata weer la toog ndax dafa am at wala ñaari at wala ñetti fan lañ ko bëgg a nàmpal. Mm-hmm. c'est une question parce que maturité bi ngay changé sa dundin di kër tey jomaay ci assise yi war na ci mën a am lu moroomam amul. parce que contexte bi la. Mm-hmm. contexte bi la nga xam ne ñi wax sax ci rajo yi légui ñu ci bari dañu am un peu de retenue te faruñu woon ak mom dañu am un peu de retenue pour may ko mu noy mais euh, calculer naa y' 168 ans 168 ans bi office offense au chef de l'état état amee en 18 en 1881 en France ak biñ koy génné en 2013 ya gëna dé digënté boobu lan la fi France def ci liggéey. Hmm. ci former citoyen. Mm formé ak nitu politique la reconnaissance de l'État xam ni hymne national taxaw ci drapeau dugg ci auto do sanni ci souf do sanni mego ci mbedd mi doo classé ci biir auto bi loolu yëpp dañ ko jang ba nga xamné citoyen citoyens yi àgg ndax ñun àgg fofu maturité bobu dëgg la c'est une question hmm. ah, euh, euh, xawma euh, il faut il faut ñu vérifier li nga xamné mom le professeur Moussa Sow Moussa Moussa Sow la tudd Paa Moussa Sow Sow ci ah, OK ne mu ngi am xaw ma sous l'empire xaw ma dina ma jaaxal trop 1881 dafa mel ni troisième république la ndax xaw ma ban. on est une disposition qu'on a hérité de la royauté loolu la wax. Ah, waaw d'accord naa mais li ma jàpp laa li ma jàpp li ma jàpp. waaw waaw loi bi 1880 ah, ah, lañ ko voté. ñu ngi ko jëlee en 2013. ñun modifié nañ ko euh, en juillet 77. Hmm. d'ailleurs ñi nga xam ne da ngeen du ñu waxee ba pare. Hmm. du du ñu toog tëdd seen kër di nelaw. Mm-hmm. Euh, maa ngi koy maa ngi koy def Ablaye Matar Diop daf ci taxaw ci biir émission bi. te di xaw ma ci ban période la war a doon. Mm-hmm. mais ragal na ne ci ni mu ko situé ak ni mu déggee texte bi rek. Mm. ni mu ko déggee ci temps wu Jean Collin la. wala temps wu Ousmane Tanor moonte kooku dëgg moo jàng ba àgg foofu. ministre ministre d' état. Mm. yore fi mu di wax dara téye ko. pour am lu ko gën a wóor.

malheureusement lu ñu lu ñu war pour ni nga wax sa xalaat luy defar. Ah, ah, ah. ku fa ku fa saaga de moom. saaga xuloo après ak matadi dëgg la moom. mais mais ci matadi la ñu dëkk fàllu xam nga nañu consacré ne réew mi ci boppam dafa am matadi. gonte woon yàlla bu ñu ko def am na ñoo xam defe nañ loolu ñu ngi waaj. mën nga ñëw wax sa dëgg ni mu la neexee tooñ nañ ma def nañ ma lii sàcc nañ sama xaalis lu nekk mais daal ci boole saaga moom day daal di yëpp. gonte woon yàlla na ko yàlla sottal.